salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. papa El Hadj Mbaye Casamance sant Madine Mbaye. waaw kii waa Dia. Daaru Saalum. waaw. Saalum Saalum. kii. ah ma ne. yes. ah soixante huit de gars yi kenn ku nekk fonk la sant waaye indi soixante huit léegi ñëpp fi lañ jëm. ah ku xam sa bopp da nga ci bokk da nga ci bokk de. waaw sant Mbaye moom wax dëgg yàlla Mbaye moom. ah. ah ko ko xam sa ko xam sa bopp daal. waaw mbay wala sekk daal. ah waaw sekk moom xàggaguñ ci sekk ga. waaw. sekk moom xàggaguñ fa mu ne ñu ngi ci mbay mi pour l'instant ñu ngi départ. ah, ah am nga yaakaar ne dañ sa yegg ren si nawet bi yaakaar ne dana sekk. ah yow yaakaar la ko yow. déedéet déet waxuma la dama ne bii ja du ni kawati gaal bi yaakaar nañ dund. waaw jeex na nga xam ne ci yaakaar ne nga dama laaj ndax yaakaar ne bu yaakaar noonu dañ ji dañ ji de de waxuma ji bi de dama na am nga yaakaar dañ yegg sant waaw xaw ma ne ma ne xam nga eh, boo jiw da nga bay da nga bay a ah, déedéet yooyu yombul moom yombul de lu muy am ah waaw jeex na léegi nag yow boo yaakaar noonu li nga yow fi nga nekk noonu yaakaar moo la fee ji waaw nangu naa waaw déedéet yooyu yow dama laaj na la ah gën a gudd bi yow yaa bëgg mu gudd di yow bëgg la mu gàtt kay mu gudd nga bëgg nañ ko guddal rek déedéet dama laaj sant mbay ñëpp a waaw sant mbay ñëppan ci waaw nga nga loo ma ci laajee ndax dana sekki wala du sekki dee dama laaj ndax sant sekk yaakaar nga dañ koy yeggi ndax yaakaar nga nawet bi dana yegg foofu ah man de xaw ma ndax dana faa gàndir waaye man daal xam naa ne yaakaar ni ah naneen de naneen xam naa ne yaakaar daal la ñuy dindi ñun waaw waaw ñëpp man yaakaar laa dundee ma ne man xaw ma sama bopp dara kon manumaa xam dana faa gëm du faa gëm man yaakaar laa dundee yow xam nga ndax danga faa gëm déet déet déet man dama ne man ci yaakaar laay dund ah waaw léegi nag nga ne man la lu tax nga ne duñ la ci yaakaar nga ne jullit ma ne jullit nga ne man man jiyee yaakaar naa duñ la mbir. de Papa Alaaji Mbay nu nga waxee ah, ak nu mu la ko laajee dégg-dégg fa xaw fa xaw a nax de. ah man ni ma déggee laa la mën a tontee de donte que ni ma déggee baaxul eh. ni ma déggee laa la mën a tontoo rek nag. waa waa nangu naa gannaaw buñ la nuyoo siyaarale bu baax a baax ndokkeel la eh, fa mel ni ndox laal na suuf ba baykat yi xamatuñ jot. guddee bëccëg bi taw waaw taw na waaw taw na kay baykat yi ah xaw ma am nañ jotam déet na moom ah kon commencé ngeen ji ah waaw dugub ji man de faru naa ba pare. faru nga dugub ji ana gerte gi. gerte gi gerte gerte gi tooyo guddi. ah waaw ma ne. Hmm. luy baaxal gerte mooy baaxal dugub. luy baaxal dugub mooy baaxal gerte luy saxal dugub mooy saxal gerte. waaw léegi nag. waaw suuf si benn la li ngeen mën a jiyee faru dugub faru leen gerte gi waaw ñun gerte su bëri yow saxalu ma wax ne ma yéen saxalu leen yéen a wax ne yéen saxalu leen yàlla ay saxal ma ne li ñu gën a bañ daal ci leen ne ñu ngi man naa ko bañ man ah waaw yow nga ne nañ bàyyi garaate loolu déedéet dama ne nañ bàyyi man téere bi dama ko tuddee bàyyi garaate man maa ko tuddee ah, waaw jaana yaa tuddee bàyyi garaate waaye ñun ñi ngi garaate ñun ah da dafa am ñax ah déedéet amul nga xam ne waaye dañuy ah, machine ngeen ko defee wala jur gi jur gi ah mbaa di ngeen sonal jur gi. Njaay. ah waa Papa laaj Mbaye wala da neena cin bu nar a neex su baxee kañ noo gisee taw yi njëkk yi ak wàccaay nawet bi noo ko gisee ren. dara ma ko ñenn li parce que xamaguma ci dara parce que dara départ gul ba ñu xam dara lu fi ñor ba ñu ko màcc ma lenn lu fi départ ba ñu mën cee xam dara. waa déet xam nga yow yow yaa ma ne man xamul nu ma gisee man gisee wu ma ne nag parce que gisee gu ma waaye déedéet am na temps boo xam nga naa ren den dox danaa wala nga ne ren den dox doxal. déet man yaa ma bopp de. waaye déedéet kenn doon yaa bopp boo xam de. xaw ma xay bu waaw nga bëgg ma koy laaj nag. moom seetlu rek la. déet waa seetlu man na seetlu ma ci loolu moom. loolu moom suma seetlu bokku ca. am nga yaakaar ne nawet bi dana niru maam ma la wax Keba Diagne yaakaar tax nga lay liggéey moo ñu tax di liggéey Keba man chaque jour maa ngi yaakaar noonu rek maa waaw waaw loolu daa ko moom lu ñu dox ci la yaakaar ñun ñow yaakaar loolu ni Ndakaaru boo loolu leeroon la boo lii doo fi am doo fi ñëw waaw papa laaj ba yooyu fa gudd man man fa lay laaj rek fu mu ah, yóbbu yóbbu yow yaa bëgg mu gudd yow mag mel ne man yow euh, euh, ab jullit nga toog yaakaar yàlla nga taxaw naan ko ndax yaakaar nga yaakaar ñun nit ñi ñu dugg yaakaar la di yow boo xëyee rek wax ne yaakaar moo la fa ngay jëm yow yaakaar la fa yóbbu waaw d'accord man de dafa am sa ah, dafa am loo xam ne bu la bu la li ngay lekk bu la leeroon ne boo ko lekkee boo yaakaaroon ne du la boo ko lekk waaw nangu naa d'accord naa waaye eh, eh, kii su dee saxagul ah kay commencé na soxla ah gaaw na di ah, xanaa waxu ne fukk ñeent fukk di lay nag léegi nag bu gaa waxal yàlla mi ko saxal déet déet déet man déet déet déet ah, papa lañ may ma ne yàlla la saxal yàlla la saxal léegi nag bu fekkee fekkee yàlla dama ko ko ma ne Eh, ah, waaw ñun nag yàlla ma ne ah ñu ñëw saxal xanaa ma ne déet wax déet yéen saxalu leen de waxuma yéen ah, dama la yàlla def yàlla def na nga ne ko yàlla li nga def dafa gaaw ah waxuma loolu de wax papa ah, lañ bu ne gaaw na boo ne gaaw na koo wax ah man waxuma la dama ne gaaw na rek laa wax gaaw na dama ne gaaw moom laa moom laa wax ma ne waaw boo ne gaaw na gaaw na sax kan nga wax ku dul yàlla yàlla da sax ñun saxaluñu. wa wa waa baax na ma ne. waaw ma ne Papa El Hadj Mbaye damaa kaw a am jaaxle kaw a am kersa. waaw yàgg nga ci. ndax dafa am yàlla dafa dogal xam ñoo xam ne dafa ma wóoloon sama xalaat wóolu sama lépp. waaw. man man ndax bokkuma ci ma ne. man ndax ah, bokkuma ci ñu la wóolu man ndax bokkuma ci. waaw de yaakaar naa yow bokkoo si ndax yow. li ma indi li bëri na ko man amul yaakaar naa ko moom na la leer bu bul yaakaar léegi xamal naa la ko na la leer bokkuma de. waaw waaw kon nangu naa léegi nag dafa am ñoo xam ne dañ ñëwoon ci man na fañ bëgg fañ nawetaan war nañu toll si ñaar fukki doomu aadama kenn ku si nekk wutaloon nañ lañ njaatige waaye su ma jumul delloo si nañ fukk ak juróom-ñaari ñëw na ñett rek ka si des fukk ak juróom-ñaari fukk yëpp ñëwaat nañ si ñun ah tey li ngeen jëlaat nag bu ñu ah ñett des ci lan ñett ñoo ñëwagul waaye ñu yóbboon ñoom ñëpp si nañ seen njaatigee bàyyi nañ leen léegi nag ñu fa des ba man de amul kenn koo baax man de waxoon naa la ah, ne. déedéet baax nañ de ah, baax nañ de ma ne. waaw dañuy déggoo rek waaye baax nañ de nga ne. ma ne dañuy déggoo ak seen njaatige waaye ba tey ñu ngi fi nag ba tey ñu ngi fi ah, amagul. foofu la foofu la foofu la mbon nga départ su fekkoon ne ni ñu bëggoon lu baax la wala lu jaadu la dañ déggoo seen njaatige. yow léegi loo sa xalaat yow wàññi nañ dégg de loo sa xalaat. xanaa nga xalaatuma ci ñoom nga xam ci ñoom xalaat ñi nga xam ne xama ci ñoom benn xalaat déedéet déedéet waa ñu njëkk xaalis ba dee la lu ñu fay bëriwul ma ne fi ñu doon def gratuit yi dama maye sax man soxla wu ma. ah soxla woo ko. déedéet soxla woo ko waaw nga defal ñu ñaan ñaan ñett ya fa def bañ a ñëw rek su ko may dana xaw a métti si ñun de. danañ dikk de neexul a ñaan loolu ñun mënu koo ñaan. ah. ñun mënu leen a ñaanal ba duñ dikk de. ah ma ne. Hmm. waa kay laaj bi la ñuy tàggatoo. comme yàlla dafa hmm. dogal jur gi gën nañu bay. taxawoon nañ taxawaay bu yàgg ba séb bi ne commencé ngeen lonku euh, hmm. ana feebar jur gi maa yekkiwu fi bon ak coono bi tooy geeg yooyu dog gi ah waaye seen dëkk rek dafa nekk jur gi man waxuma suñu dëkk de dama ne dama gis ne jur gi taxaw nañ lu mat juróom benn weer bayu ñu xëy lonku leen hmm. nuñ def ndax ñu bëri mën nañu dog yii da feebar mbaa yekkiwut foofu laa yaatuwut fa nu mel ah leeru ma de xanaa ne wala Casamance ban ñaw na foofu ah bu ma nee Casamance ah wala seen jur gi na da bay yéen. new da lan bay. bay bay bay. Ah, waaw mu yóbbu lu lu feebar na mooy bayee. yow nga ne feebar waaw moom laa laajte ma ne ndax ma ne ndax doguñ laa ma ne ma ne. ma ne ndax doguñ xalaat ma ne xam nga comme yaa ngi xalaat feebar kay mënuñoo bay. mënuñoo de dama gis ñu taxaw taxawaay bu yàgg laa wax. waaw léegi lu taxaw taxawaay bu yàgg dafay feebar loolu jot a lu waaw bu ñu tuddee loolu nga mën a. maanaam yow feebar rek nga ci mën a xalaat ne moom lañ war a def. ñu taxaw di yàq xalaatuma ci feebar bëgguma ci feebar damay laajte xalaatuma ko ci bëgguma ko ci damay laajte rek. Ah, xam naa ne bu ñu bëgg ko ci waaye gannaaw loo yàlla bu fekkee du yàlla nga feebar loo. ah tey moom tey feebar moom moom bëgg bañ a ci am. waaye moom man nga ko yéene de mais xëy na yàlla. ah déedéet waaw waaw naka laa mën a yéene nit ki li muy juree muy feebar. naka nga mën a taxawee di ko wax waaw déedéet damaa laajte rek damaa laajte laajte dama doon Fapal mbay waaw ma ne lu tax nga xalaat lii li li xalaat ci àdduna bi yëpp ak li baax ci àdduna nga toog seen lu gën ko wax kay kooku bu fekkee boobu ngay xalaat kay yow kay sa yéene baaxul. Ah, ba ba balaa ñu ngi ñu ngi ma ne ñu ngi ñëw anti ñun waay démb réew mi. ànd ànd ak Omar Omar Touré ah, ak Pape ah, kii Abdou Salam ñëpp ngeen ñëw anti incha allah tey moom xam naa ne comme julli gi moom yaakaar naa ne ndaw jeex na li. ndaw jeex na li. ay ana li ngeen weeroon. ah waaw yéen de mën ngeen a jox yow xam nga yéen góor ngeen a lekk loolu mën ngeen a jox. li ngeen ah, la yi léegi. ok ñu nga bi nga naan ma la. ah, ah julli ci jox ah, nga tool wàcc ñëw togg sa ndawal gu baax béykat yi béykat yi jaaxal na de. ah dé ah, béykat yi xanaa duñ ñun ñoom suñu affaire baax na kay. ñu sant yàlla waaw déedéet ñu woon man mii sax béykat laa. waaye dama ne affaire yi dafa kaw a jaaxal. boo ne béykat yow da ngay toog boo ne béykat kon lu tuddee na béykat yi. ah yéeme na léegi doy na waar de léegi de moom yéeme na seen mbir yëpp na de. suñ mbir yëpp na de. ah. waaw ah, jaajëf suñ mbir yëpp na ndax lan. déedéet di wax maanaam seen mbir mi ëpp na léegi xéwal gi foofu bëri. ah lu bëgg maanaam xéwal gi dakk lu tudd xéwal lañ doon ñaan léegi yow kon xéwal gi xéwal gi nekk seen dëkk doy na lan laay ñaanee xéwal gu ndàkk Papa Alioune Ba yow tey sa waxtaan ma ne yow dafa